waaye nag di santaat suñu borom yi ñu taw fiixal ba ñu mën a toogaat di mën a yëkkatiwaat ay kàddu ay kàddu fàttalante suñu diggante rawatina ci li nga xam ni dafa xew jamono ji muy actualité bi nga xam ni dal na ci ki nga xam ni mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg di sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam jëf jooju xew fee nga xam ne moo di ca France muy jëf joo xam ni jëf ju ñaaw la képp kuy jullit masa wax laa ilaaha illallaah xam rasulullah metti na la ba ci ñi nga xam ne sax duñu ay jullit am na ñoo xam ni metti na leen ko rawatina ñi nga xam ñoom ña ngay safoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf joo xam ne ñoo ngi koy ñaawlu suñu fu suñu kéemtalaay kàttan waaye nag li tax ñuy gën di wax du ci wàll woowu ndax ñaaw na moom ba fi képp ba foo loo nu ko waaye xalaatee rek weesu na ko ba tax réew yu bëri jóg nañ di manifesté wu di taal drapeau France ñële ña ngay boycotté produit yi nga xam ña ngay jóge France ci wàllu euh, jënd jënd ak jaay yu ni mel waaye nag euh, ba ci réew mi sax am ña xam ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy naqarlu te lu ñu rafetloo tamit ndax lu ñëpp wala lu ñëpp lu ñëpp war a naqarlu la waaye nag euh, ni ma ko waxee sànq li tax ma def vidéo bi am na ci ay sénégalais yoo xam ne def nañ ay sorties saa yu mel ne bu amee rek dañuy jóg attaqué kilifa diine yi wala xalif généraux yi nga xam ñoo ngi ci réew mi jékkati ay kàddu yoo xam ni kàddu yu ñaaw la jékkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yu ñàkk teggin yu ñàkk xorma la yu jëm ci ñoom yu ñàkk teggin jëm ñoom te ñoom jàpp nañu kon sunu kilifa diine yi bokk nañu bëgg yonent bi dee na des na wala jàpp ngeen ñoom lu tarixa ñoom waxuñu si dara déedéet mbir mu nekk daam nañ koy nañ koy nañ koy doxalee ndax si si doomu aadama yi def si am ñoo xam ne média daf leen a yomb am ñoo xam média pour feeñ ci média daf leen yomb am ñoo xam ne youtubeur mën nañ dugg seen néeg dafa seen seen seen message jàllale hmm? am déet lañ cee bëgg wax maanaam ci misaal kese ci misaal dëj bu amoon fi ne ko xam sa mbokk gañu na nga xol joyin ya des gi ño xam buñuy joy dañuy xalangu di yuux gis ño xam fi dañuy toog place di joy. gis ño xam ni ño ngi joy joyu xol te ñoom ñetti ñooñ ndax mën nga ma ràññeel ko xam ni yaa ngi ki la ki ki dem ki la gëna a metti mënoo ko xam ndax lo li ci biir xol yi gën leen bëgg kenn sallallahu salaa wasallam gën leen bëgg kenn sallallahu salaa wasallam ñii di kilifa diine yi ngeen di yëkkat ay kàddu ko jëm na ci ñoom li ñuy def ci réew mi xaaj bi wala ceer bi kaar bi def leen ko man biir na ma ñoom fi ñu teg rasulullah yéen tegu leen fa rasulullah saa ñoom fi ñu ko teg yéen tegu leen ko foofu. naa ngi indexé nag euh, professeur euh, Omar Diagne dama koy déglu nag di nawlu xam-xamam mais dafa dérapé dafa xaw naa dérapé dama ko koy wax mu dégg ko ndax nee na yoruñu ay kilifa diine ay kilifa tariqa la ñu yore. loolu la wax ne Sénégal amul kilifa diine ay kilifa tarixa lañ yore bo Sénégal amul kilifa diine kon diine am fi kon xana kon te ne nga ay kilifa tarixa lañ yore ndax tarixa mën nga ko génne ci diine wala bok ndax tarixa dafa yor benen fonction bo xamni dafa wuté ak li fi yoon sallam bay ndax mënoo tarixa mënoo alquran alxuraan tarixa mënoo génne ci alquran alxuraan julleeg woor arkaanu islaam alxamsa arkaanu imaan as sitta al ihsan loolay loolay tariqa jaamu yàlla ànd ak jaamu yàlla loolay tariqa lu caagi ne yow boo jógee manifesté wu rek ku manifesté wu bëggul yonent bi saa salaam non non non kilifa yi daam na ñuy doxalee du ñu doxalee comme yéen tuut tànk yi ni ngeen di doxalee déedéet bu ñu ko defee rek wàcce seen bopp kilifa daam nu muy jógee wala boo yéen ngeen njëkk jot ci information bi génn rek dal seen kaw directement mel na ngeen doon xaar yu mel ni am xew na fi ci jamono Charlie Hebdo ku nekk jóg xas kàddu goo xalaat jël ko teg ko ci kilifa diine yi dem kilifa diine yu bëri jógeen jëmm xëy na diggante bi ñoom dañu doon diisoo seen biir wa amruhum shura baynahum loolu al islam di doxee afala tazakkaruun il faut ngay xalaat afala taqilu il faut ngay xalaat yàlla suñu boppam yi saa salaam suñu boppam yàlla da ko ne day diisoo saxaaba yi wala kunta fazzan galiza al qalbi lam lam lam fad min xawlik kon faw ñu diisoo ñoom faw ñu jéem xam faw ñu informé wu xam du caagi yaa ngi ci réseaux sociaux yi information yaa ci njëkk rek ku ci jotagul rek bëggu doon salam loolu njumte la te gannaay doo nga xam ni tamit am nga information war nga xam ni ngay waxee ndax la Cheikh Ibrahima Fall waxoon rek wax moom dafa am dafa am dafa am dafa am charte juróomi charte la am ba ci njëkk moo xam li ngay wax xam li ngay wax gannaaw ba nga xam li ngay wax nga xam ni nga waxee gannaaw ba nga xamee ni ñu koy waxee nga xam ñi ngay waxal ñooy ñan boo xamee ñi ngay waxal ñoo ñan nga xam fi ngay waxee fan la gannaaw ba nga xamee fi ngay waxee nag nga xaar ba ñu wax loola nga soog a wax nga xaar ba ñu wax loola nga soog a wax teew sax daanaka bu ñu dem charia sax da ngay daanu ci côté boobu say biir wax dégg naa audio bu baax li nga vidéo bi nga seetaan naa ko ndax boo xoolee Euh, li nga xam ne moom mooy fi nga njëkk daaneel sa bopp bokk na ci li nga naan yàlla wax na ni wa amilu saalihaat yàlla ko yàlla ko waxul ni waxu ni ngeen toog feen toog di ñaan di ñaan nañ génn na kilifa yi génn ci mbedd yi kilifa dina génn ci mbedd bu sànni ay xeer wala di taal ay drapeau déedéet déedéet ngeen yàlla waxul toog sa di ñaan ñaan ñaan yàlla wax mooy ne wa amilu fi lazina wa amilu la yàlla wax wa amilu mais le contexte bi nga firee amilu te boo xoolee amilu sax C1 yi élèves yi def c'est un xam amilu fi'lu maadi c'est déjà passé mais yaa ngi ko utiliser comme impératif du genre ndigal ay ordre né nañu jug jëf xol bax li ngay def té bo né amilu té la ci yalla teg wa amilu solihaat la ci yalla teg lolou da nga koo jëf ju rafet kon seen jëf ñoom xana da rafetu ba sëñ mu daqaa di ay alal di def ci ci ci li nga xamné mom moy mbass mi am ci réew mi mais xool ci julli dañ ci faj xool ci murid dañ ci faj wala tijaan bi xool ci kat chrétien bi mais daf jël ak joxe loolu du amilu salaxaat boobu yéen ñaata ngeen ci def ñaata ñaata ci ay aide la kilifa yi def ci réew mi rawatina li gën am solo ba am solo mooy crise des valeurs bi nga xam ñu ngi ci réew te ñoom ñu koy defaan jël ndaw ñi tënk leen di def ñoom alxuraan def ñoom diine def ñoom tarbiya ngir ñu am valeur yi gën a riche lépp. nga yëkkati ay kàddu yi ñàkk di ko teg seen kaw ñooñu da leen war a encouragé da leen war a naw ndax dëkk yu bëri bu ñu sañu am lu ñu am ñun kon ñu war ñoo yem ak kenn waaye war ñu ëlbatikuwaat nag di xasaat suñu bopp boo jógee nag nee nag Sénégal kilifa amu fi kilifa diine amu fi kilifa tarixa moo fi am mais tarixa ndax dañuy doxalin doxalin boo xam ne jigéen dig diine bokk ci tarixa boo gis muy dox ni diine di doxee lay doxee ñi diine doxee lay doxee te gënoo leen gëm yonti saa salaam xamul nekk seen biir xol ndax sunu borom in akramakum inda allahi atqaakum inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li inna akramakum inda allahi atqaakum ba ko yàlla xëy ki gëna tedd ci yéen moy ki gëna moy ki gëna ragal yàlla ndax mën nga gis doomu aadama xamni ki mo gëna ragal yàlla ke mëno ko xam loolu yàlla rek ko xam loolu yàlla rek mo xam ki gëna ragal yàlla kon ki gëna ki gëna top toog sa sa mëno ko xam du caagi ni ki génn manifesté wu taal ay drapeau rek kooku mooy ki ki ki lu mbir mi ki toog ci roq métti lu wu ko déedéet ndab li moom bu ñu ci toogee di lekk na kenn ku nekk lijjati na muy lekkee te bañ a lijjanti na keneen di xewloo te bañ a lijjanti na keneen di na keneen di xewaloo kilifa yi duñ seen moroom ñoom daa am nu ñuy doxee daa am nu ñuy nu ñuy doxee kon ki ñàkk xam rek ka ndax alxuraan hal yastawi lazina yaalamuuna wa lazina la yaalamuun du ngeen mas a yem mukk ki xam ak ni muy doxalee ak ki xamul du ñu mas a yem mukk waaw dina waxe tazakkaru ulul albaab nag ñuy xalaat deug deug ñom ñoom tudde ulul albaab man dama jàpp ñom kilifa diini ñom ci ulul albab ñom lañu bok bo bëgg xam ulul albab nak dama suut ari amran allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkuruna fi xalqi samawati wal ard تلي خاو لب ديجنت أسمان سمن خاو وتفكرونا في خلق السماوات والأرض نسون بون بين دي أسمان أو بين دي سوف ولب لو خاو تي ديجنت بوب لخاو كن يوم نيو دخله دام نيو دخله ده خالص بين خالص دان لا نلا ينسى سوا هني ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغرب جامبا دغ دغ نيكول كي تيل تيل دي ديم دي فيرتي فيرتي يوي ساسم نيكو دي جامبار دي innama shadiidu innama shadiidu lazi yamliku nafsahu inda al-ghadab jàmbaar mooy koo xam ne saa boo xam ne am na tiis lu ko métti dëgg-dëgg mu am maîtrise maîtrise ba nga ba tax ba nga xam ni ngay waxee maîtrise sa bopp ba xam ni ngay xalaatee ba soo waxee sax mu ni mu jëriñ nit ñi boo boo waxee wax ji jariñ nit ñi ndax yow fi nga toll di waxoon noonu waxu ku mer nga doon wax dèjà sax dafa dem ba mel ni que yow kaasatoo sax lañ def lañ def lañ def ci yondi saa salaam waaye yaa kaas ni kilifa diine toge ndax dañu tok di nelaw wala kam mo la informer ne ñom nek ñu di diso wala bok bañu diso dañ la cee wul te yow kasse ne bëri nga ci ay moro ñu bëri ñoo xam yu melni lañu xaar pour attaquer men ñom ñom ñu yondi kon jumte bobu lolu dafa wara jeex ay kilifa daa kilifa daa am nu mu doxee ni kilifa di doxee bokkut ak ni taalibe bi di doxee taalibe bi dañ koy tarbiya ku amul taalibe nag moom waxuma ci moom dara ku amul kilifa it waxuma ci yow dara te ab taalibe tam du yëkkati du ñëkk yëkkati kàddam ab sëriñam donte ñu def yoon saa saram na waaye yoon saa sa moo ñu jàng enseignement boobu kilifa doo ko jiitu ci dara doo ko jiitu ci dara. ndax bu la doyee rek moom docteur bi lay faj moom bu la doyee rek da nga koy bàyyi kàddu mu wax rek noonu la nga sukkandiku ci loolu kese la kon nag nañu bàyyi xel baax a baax li ngeen ni def bàyyi leen kilifa diine duñu seen morom duñu seen morom ñoom liñ fi def def leen ko fi li ñu ci ay ndongo den tar bi teg leen ci yoonu sirata mustaqim yi def leen ko def leen ko ndax alquran mo hadith wax na ni al ulamaa ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء تكتني وإن الأنبياء لا لا يرثون درهم ولا درهما ولا ولا دينارا ولكن يرثوا العلم بروم خم خم يي ñoy fi wutu yonent yi tay sa fukki xel xalaat sañu te xadis wax ne borom xam-xam yooyu ñoo fi remplacer yonent yi te yonent yi ñoo fi saxal diine ji ñoo fi ñoo ñoo ñoo ñoo tabax diine awi saa ngi de ñoom ñor ay tarixa tarixa sukkandiku ci yoon lislaam nga bëgg génne nga bëgg génne tarixa ci diine diine islaam hmm? comme ñoom ñoo wuti yonent yi loolu xadis de daakoon nga ci te sañoon ne ñoom amuñu xam-xam ñoo wuti yonent yi kon mbir mu nekk daam nañ koy aborder tëll tëll ak rajax regle wul dara li ñaa bataille psychologique am na jàng ngeen ko yéen ma ko gën a xam mbir bu nekk daam nañ koy xeexee stratégie dafa am ñoom la ñuy lijjanti nag ñu xëy ñoom ñoo ko xam la ñu war a wax ak na seen wax nañ koy ràbbante ba mu ba mu ba bu jógee jariñ sëñ Muntaxa waxoon ci discours bi mu defoon ci tabaski ji su ma sañoon su ma waxee mu am njariñ ma wax ji ñuy déglu mais bu toppee réew mi di wax déedéet du noonu ak beneen xilo ak kenn ku dul moom kon daal message moo di yu mel ni bu ñu amatee nañu xoolaat ni ñuy doxalee ànd metti lu ko dañu respecté kenn dañu respectante suñu biir kenn ñu respecté suñu biir te dégg naa ba te si sa biir wax ngeen soxnaa ko sax ngeen affaire du ay ñaan te ñaan ñaan yónni saa saa ci boppam moo ne al doa dua silaahul mu'minin kon hadis boobu noo koy def ne nga yu Bachir Diagne ne nga Omar Diagne la wax sax plutôt xana no noo RBC Diagne xom Omar Diagne ne nga mbir mi du ay ñaan ju génn ci terrain bi la mais ñaan ci boppam ñu saasa mo ne julli ñi ñaan moy sen gànnaay kon gànnaay bi ñu saasam jox ko nañ ko tek yow jël sa gànnaay yow jël sa xel dedet xalatuñ ko xalatuñ ko ndax yeen buñ jugon ñun ñep buñ jugon tal drapeau France ndax tax na ñële bay lañuy def dédé loolu ñu koy def manifester pour nakarlu kessé kenn ku ne na ngeen naqarlu yaa ko xam du caag yow ni nga koy defé rek ku ko deful noonu bëgg yonent bi sallam loolu kessé la nit ñi boo xamul li nekk seen biir xol bu leen jugé bu leen jugé mukk ba tax nga jël kàddu gu ñaaw gu nekk teg ko seen kaw ci sallam sam joxoon nañu arme boo xam ne nañ mën a amikul munkara fa fa yu xayru bi bi bi yadihi فإن لم يستطع فبقل فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أدم الإيمان كو خامني غيسني لو خامني لو نيالو لو بون لو نييب باغ بوكو ماني دين صلوخو nga دين كو بوكو مونتي دين صلوخو nga واخ سي سلامين مو دنج فكنا مونو سي واخ مو دنج nga met luko sa bir xol yeb ay arme la kon mani buñu manifester taxul mu dañ waye dañuy manifester pour wone kële moom day bañ a jënd produit France pour wane naqaram kii day taal drapeau France pour wane naqaram kële dafay taal photo Emmanuel Macron pour wane naqaram mais keneen ak keneen ak keneen ak na muy def yow bu jàpp ne yow ni nga ko defee bu ko kenn defewul noonu rek moom kooku bëggul yoon bi saa salaam wala affaire yi météo ko ko loolu njumte gu rëy la ko ñu xam ne ko suñu kilifa yi ñoom ñu dañ leen jox seen seen seen gëdd di leen ñaanal baax a baax ñu gën fee yàgg te doyloo nañ leen te doyloo nañ leen baax a baax a baax baax te yéen tamit moom maa leen di masaw di leen ñaanal suñu borom gën na a taxaw rek ëpp ëlbët seen xel da ngeen def na ci wàllu social ci réew mi ne di taxaw jeunes yeeg yow moom maa ngi koy rafet lu baax waaw mais daal ñu bàyyi xel bàyyi xel ni daal kilifa diine duñ seen morom kon maa ngi jëlaat ci kàddu yu baax ci fekkee am na loo xam ne cee dérapé wu maa ngi ci tubaat baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu